jaajëfatee jaajëfatee sama gars yi Mister Shake la maa ngi ni Brooklyn New York gars tey dama ñëw defal leen benn vidéo ci euh, nu mu tuddati ci euh, cinquante millions yi nga xam ne Macky Sall daf ko jël ñoom ñu séddoo ko ak joueurs ñi nga xamné ñom ñoo gagné équipe nationale ñom ñoo gagné coupe d'Afrique Sénégal fi mu toll ceeb yu yok suukar yok diwlin yok lepp lepp yok nit ñi xif nit ñi amuñu liggéey ñu gagné coupe d'Afrique amuñu dara lu ñuy def lu di jël 50 millions ak ñaari terrain diko jox matarba ministre amuñu dara luñuy def du jël 50 millions diko jox Abdoulaye Sow ministre amuñu dara luñuy def di jël 50 millions ak terrain diko jox Augustin Senghor président fédération sénégalaise de football Macky Sall keroog bu muy def discours dafa wax da fay jox joueurs yi ak ñi nekk ci organisation bi man lool la déggone kay man kay lool la déggone ba ma man loolu c'est pas normal joueurs yi ñoom ñoo football nan la wara mëna a mën ak ñi nga xamné ne ñu vraiment li vraiment tong-tong la Macky Sall vraiment li ku ci waxul ku ci waxul c'est parce que xéne na yow xamuloo li xaw ndax Coupe d'Afrique bi Sénégal dañu dañ leen ci jox trois milliards mais man waxon na leen fi avant Guy Sagna di génn di wax ne terrain yëpp ay dóor la di Marius Sagna nee na li ay dóor la ci profité pour pour pour pour sedd seen bopp ñu gab benn journal bu ñuy wax le témoin mu ngi nii dégg journal bu ñuy wax le témoin mu ne outre outre les lions qui sont les autres bénéficiaires nekkate cinquante 52 personnes 52 personnes ont reçu les 50 millions mais au nom de quoi on a 23 jours, n'est-ce pas le témoin dévoile la liste des bénéficiaires des primes de 50 millions de francs CFA accordées par le chef de l'État au Lyon et à leur staff technique sur, la, sur les 52 bénéficiaires des primes de 50 millions, les 49 sont sous tutelle directe de la Fédération sénégalaise de football, tandis que trois autres travaillent au ministère des Sports. Dengen Gay, Nous avons le ministre Matarba, avec son, directeur de haute compétition, Léopold Germain Senghor, Tekoko, Rakou, Augustin Senghor, mi président n'est-ce pas fédération de football kon saint bir, Nous, la famille Senghor am nañu 100 millions de au Sénégal Augustin saint ak rakam am millions am terrain deux 500 mètres carrés euh, ba pare nous terrain cinq mètres carrés ministre ak kan ministère du sport Mamadou Ngom je suis Daaj xaw ma côté fédération ñu avons Augustin Songor, garde du corps Qui ki garde sax dañ ko jox juróom de million ci sénégal. du Sénégal ki koy garde Il yëpp a dóor la am a euh, Karachoun chargé de communication de la fédération beau-frère de Fatima Samoura Fatima Samoura Fatima Samoura du président présidente FIFA ñoom rek Sainte-Bire... bir sen bir gis nga beau frère am gorom vraiment qu'il dafa metti des agents de la BIP ay ñoo xamné ay garder rek mo taxone ñu BIP brigade d'intervention euh, polyvalente ñoo xamné sécurité rek mo taxone ñu fa nek ñu am le patron de l'encave... bolé nañ ko ci ministre ak ak ministre de l'urbanisme Abdoulaye Sow mais pourquoi Abdoulaye Sow vice-président fédération 50 millions Macky Sall jël les réew mi ñoom là.. rek lañ fi nekké wa APR ni lañ fi nekké waaw lek rek sénégalais di dé ñom son ñu nekku ci man waxon n'a leen 3 milliards duñ ci gis dara té gis nga joueur yi sax amna nu muy démé terrain yi sax duñ ci jot terrain yi duñ ci sédd sen bop lan Sénégal est-ce que lan Macky Sall ci laalu ci parce que 3 milliards la gars APR duñu dara mu le président de la fédération s'est taillé la part du lion Waouh ndax ndax Augustin Senghor mom, bokk na ci 11 millions yi ñu coupe équipe bi qualifier, qualifié millions Nous Cheikh sec. nous ñëpp 3 nañ millions 11 millions coupe d'Afrique bi rek Augustin Senghor dina am millions pendant ce temps meanwhile population bi di les primes de participation de la CAN Augustin Senghor le ministre Abdoulaye Sow ah ministre Abdoulaye Sow le patron du foot local Cheikh sec aussi vice-président de la fédération Djibril président de la ligue sénégalaise professionnelle de football avec tous 11 millions Deng 11 millions dont 6 millions pour la qualification et 5 millions pour la participation Si nous qualifier 6 millions ku Abdoulaye Sow participer pour que tu coupe 5 millions oui 11 millions nga bolé ci.

dee na kon booy xool fukki nit dee nañu ci Coupe d'Afrique bi ndax mbégte ndax kontaan mais ñooñu est-ce que dégg ngeen Macky Sall benn yoon mu ne dafay jël xaalis jox leen dégguma ko fenn benn 30 secondes la leen def une minute de silence boo xam ne 30 secondes la jeex na te Macky Sall ñett rek la wax ne ñoo dee ñetti deewuñu juróom-ñeent léegi fukk nit dee nañu ngir lan kontaan am na koo xam ne dafa amoon crise cardiaque maanaam mbég bég ba xol bi daal di. rës daal di lâché mu dee est-ce que dégg ngeen Macky Sall ne da di jox xaalis déedéet man waxoon naa leen gars yi Coupe d'Afrique bi nañu dem rek Macky Sall def ci ndara langaamu pour jéem a def troisième mandat wala pour jéem a fàttaloo nit ñi élection yi bañ a jëli seen carte xam nga jéem a nax nit ñi wala mu daqat élection yi coupe du monde bii di waaj ñëw qualification coupe du monde noonu la ñu ndara def ah xaalis bu ñu qualifié ñu ne ne joueurs yi nañu xaaral ñu joxaat leen xaalis lii dafa ñaaw Matar Ba nag génn na ñu ne Matar Ba dafay weddi mais Matar Ba weddiwul dafa ne rek loolu ñu wax du dëgg Matar Ba <laughs> nee na loolu ñu wax du dëgg te journal témoin génne ko léegi nit ñi ci commentaire Sénégal dañ ne Matar Ba génneel list bi comme da nga ne du dëgg génneel list bi lii dafa ñaaw mais nag bettuñu bettuñu ci Macky Sall bettuñu ci nit koo xam ne dañuy wax ne ah ay DG dañuy sacc ay milliards chaque jour.

ngeen dimbali ci xale yi nga xam ne dañuy nekk ci football bi par exemple utal leen ci ay liggéey mais yéen ngeen ñëw ngeen séddoo ko mel na yéen yéen Sénégal daal yéen moom senegal ba pare yemu leen ci ci ci ku nekk juróom fukki million ba pare ngeen am ay terrain terrain yoo xam ne da ngeen koy séddoo seen biir jël seen i mbokk jox leen mais Sénégal du dem man yaakaaroon naa ne Macky Sall Coupe d'Afrique bi dina ci profité. nax nit ñi waye fi mu nekk ni gis nga salaamaaleykum maaleykum salam woné nañu seen jikko la té gëm na né sénégalais yi duñ leen ko bal ndax buñ démé ba ñu titré ko Seneweb ñu démé ba titré ko parce que ñi ay sénégalais lambda da ngay liggéey ba dé do am sax 500000 pour jënd terrain tay nga ñëw ñu jox leen terrain jam ñaaju 500 mètres carrés mais surtout xaalis bi jurom fukki nit ak ak ñaar 52 personnes ku nekk ñu jox la 50 millions. mais lii dafa doy waar te am na ay ay ñoo xam ne ñu ngi ci fédération bi nekk troisième adjoint wala quatrième adjoint dërëm sax joxuñu leen ko mais dafa ñaaw mais xaalis boobu waroon bu dee da ngeen di séddoo rek séddoo bukki bu dee da ngeen di séddoo mais séddoo leen ko seen biir sax ñii am 2 millions sax ñii am 3 millions ñii am 10 millions ñii am 15 millions ah Augustin Senghor mënoon nga am monsieur quatre mandats yow kay lii moo taxoon bëggoon joxe bëggoon joxe euh, euh, fédération bi. lii moo taxoon bëggoon joxe fédération bi mënoon nga jël mënoon cinq millions pour yow wala dix millions ministre lan lay laalee xaalis ministre dañ ne dafa war a def service public minuit def ministre dañ koy fay suñu xaalis fay ñu ko suñu xaalis pour du ko yëkkati di yëkkatiwaat yeneen cinquante millions di ko jox Matar Ba bañ koy def ministre des sports defuñu ko ministre des pour mu jëliñu coupe d'Afrique dañ ko wax tabaxal ay stade dañ ko wax dimbalil xale yi waaye stade yoo xam ne stade yu bon Macky Sall si ba gagné Coupe d'Afrique conseil des ministres bi passé mu ne nañu défar État Demba Diop nañu défar stade Amitié te stade yooyu ñoom ñoo ko faire. leen ñu dañ ko pour fa def ay mais légui comme gagné nañu Coupe d'Afrique légui nañ nañu défarat yi ba nañu jël euh, euh, région yi ak ñent lutax lutax nous, football Macky Sall vraiment matarba. Matarba... fi liñ milliards ne ko defaral La Dior ko ko ba ñom ba FIFA daal di suspendre ne stade kenn du football xawma kaf la xawma kan moñu suspendre ne kenn mënu football parce que bi la ñuy ministre wuñu ministre Sénégal gagné Coupe d'Afrique ah 50 milliards xol milliards 50 millions jox il Ba yëkkatiwaat 50 millions jox Abdoulaye Sow ministre rek rek rek rek pendant ce temps sénégalais yi di jooy parce que suukar dafa yokk dégg naa dañu yow ñu ne suukar yokk waaye sénégalais Si booy xool lii baax na ci parce que avez des affaires rek ngeen gëm ay de football man li moo taxoon ma Sénégal yàlla na toog premier tour. Billahi. parce que xamoon naa ne bu ñu la coupe d'Afrique kenn dootul dégg dootuñu liggéey. ba pare da di gën a jox fit ñuy def lu leen neex di sàcc di gën a sàcc parce que dañ naan Sénégal yi kontaan nañu fii weer ñaari weer Sénégal loo def dinañ ko bàyyi. xam naa ne marche koo jigéen yi di ñëw sax kenn du ci dem le 20 le 20 février est-ce que waa sàmm jikko yi sax est-ce que duñ ko dàq jëli carte yi bu ñu sàgganee kenn dootu ko tal ndax topp ñu toog gañe nañu gañe na man lii moo taxoon ma ne Sénégal yàlla na toog coupe yàlla na toog premier tour waaw parce que dëkk dafa foo xam ne bu fa toll da ngeen war a fexe ngeen ngeen nangu seen réew may mais président boo xam ne faalewu leen du ñaa ngi dee ci accident yi tey rek dégg naa am na huit personnes juróom-ñetti minute dee nañu ci yoonu Kaolack côté Kaolack juróom-ñetti loolu mooy problème mais ay football fan lañu ñuy jëmee jëmewuñu fenn nga gis li am Mali nga gis ni am Burkina Faso waaye gagné naa Coupe d'Afrique TFM dinañu bëgg rey tey la la tey la tey la jàkkaarloo tey dinañu bëgg dee ak jàkkaarloo ndumbelaan gañe nañu coupe bi gañe nañu coupe bi gañe nañu bi mais li ñu war a wax mooy lii Matar Ba daf ñu war a delloo suñu xaalis Abdoulaye Sow daf ñu war a delloo suñu xaalis Augustin Senghor daf ñu war a delloo suñu xaalis lii gars yi ñu bàyyi mu sedd ñu bàyyi mu sedd parce que lii c'est un scandale mais lan moo tax Macky Sall di jël xaalis bi rek di ko joxe nii comme sa cinquante deux personnes te loolu rek la ñu xam lii des si xaalis bi fan lan lañ ciy def est-ce que dara des na ci lépp la ñuy lekk lii dafa ñaaw quelle honte quel scandale voilà gars like vous partagé abonné Mister Shake la waaw na am bu ci live je sais pas parce que le climat est bon sommes sujet bu ñu ñu mais vraiment mais nous Nous ñu muñ rek muñ nous Nous sommes nous suñu parce que nous ñuy nous ñu Nous, ñuy nous, nous ñu nous ñuy nous nous sommes ku mu révolté lan lay révolté voilà gars like partagez abonnez-vous, abonnez vive le président Sonko vive le Sénégal vive Yo askan merci